dañ ñoo faloon ñu war a doxal mbir mi ñu def cinq mois woowaat région yëpp président yëpp ñëwaat pour ñu waxtaan ñu def évaluation ci bilan financier bi ak activités yi nga xam ne moom lañ jotu def loolu moo waral woote bi ak nu ñu mën a jëmee ca kanam pour regroupement national mën a jëm ca kanam looloo tax ñu daje pour waxtaanee mbiru transport ak lu jëmale transport kanam sant yàlla bu baax puisque région yëpp ñëw nañ région Sénégal yëpp ñëw nañ kon bu ñu ñëwee pour ñu liggéey jëm kanam ñu kontaan ci évaluation bi tamit am na luñ jot a def am na lu des mbiru finance bi tamit am na lu jot a dugg loo xam ne vraiment ñu ngi ciy sant yàlla bu baax te loolu mooy doxal kuréel guy dox. di wax ne ñun transport depuis mille avant l' indépendance ba léegi ñoo yor transport Sénégal bi. kon bu ñu demee ba nga xam ne état bi nga xam ne ñoom ñoo ñun ñoom ànd que état mooy ñun ñu ngi defar BRDS ñu ngi defar transport ñu ngi defaraat même train yi ñu koy indiwaat te ñoo ñëpp nekkuñ foon kon ñoom war na nañoo mën a xoolaat ñun ñu gën ñoo jàppale comme ni ñuy jàppale ñëpp pour jëm kanam loolu laay lancé suñu ministre man Mansour Faye pour mu gëstu ñu gën a jàppale transport bi pour ñu mën a jëm kanam parce que transport transport laaj na fi ne ku leen jàppale. am na loo xam ne sax état bi jéemoon na ko ba ñu recensé mais état bi mu sa recen mu sa changé parc automobile transport intérimaire ah balaa boog man fekkee wu ma ko ñoom dañ ko amoon di ko keree di ko def ba am ñeneen partenaires yoo xam ne ñëw nañ tey suñu réunion bi di ñu wane ay oto di seet ñoom te nu ñu ànd ak ñoom loolu yëpp day dépendre rek ci état parce que ñun ñooy état état mooy ñun loolu doolu il faut état jàppale ñu ci pour liñ bëgg mooy cette place ñu changé ko ñu dimbalé transport interurbain pour mëna jëm ci kërëm dimbalé gaaru ceer yi puisque garu ceer yi ñom rek ñoo fi ñoo fi nekk ñoo ñoo ñoo ñoo IPRES transport ñun ñoo IPRES puisque ñooy téye mag ba mu retraité ñu téy ko diko fay bam mu bam ba aduna kon war nañu gëstu transport bi gën ko jappalé pour transport jëm kërëm li xalaat boy buñ ko défé mu ñu soxale transport ñu wo acteur transporteur tok ñoo waxtaan jël seen xalaat ñëw dund kuy transporteur xam nga état bi xamul kuy transporteur xamul kuy safar il faut que ñu dund ko ñoom ñu am ñu acteurs yoo xam ne bu ñu leen falee ñu nekk ci état bi war a ja liggéey day ñëw dund transport bu boobaa danañ mën a fexe ba transport jëm karam mais bu ñu tegee benn côté rek dañuy accidenté dañoo indiscipliné rek duñ dem te loolu war naa jeex war nañoo seet nan lañ mën a dimbalee transporteurs yi pour jëm ci kanam puisque benn transporteur xalaatul di accidenté rey jina sax xalaatoo kon lolou yep il faut que ñu seet nan lañu jappalé dund ak ñun ñu dund leen ñu tok waxtaan ñu sét ñu développer le transport man lolou la ko gisee lolou fi rek mo dess pour ñu mëna a jëm kanam. ba légui nakar la ak xol bu tàng chauffeur sëpp parce que mënu ma comprendre yow nga ay transport bi nga xamné mom transport bay ay wargee da muy daw guddi nga transporteur nga né yow da nga bëgg def lu logique da nga bëgg def loi man lolou ba légui mënu ma ko comprendre maa ngi ñaan ministre bi Mansour Faye di xarit di mbokk pour mu jàppale ñu loolu mu gën a gaaw dëñ parce que loolu du wax xalaat téye ki war a daw bàyyi ki war a daw loolu moom nañ ci gaaw jóge am na regroupement national bu fi nekkoon ñu ne ko fédération kooku existe léegi léegi regroupement national des chauffeurs du Sénégal moom na daam loo mi jiite am na nag benn groupe bu ndaw buy wër naan ñoom ñooy regroupement national kooku existe tout ndax daam loo ma doon vice président man maa doon deuxième vice président trésorier ñëpp ñu ngi ci groupe bi fii état Sénégal li ñu koy demande mooy milliards yi mu def ci terre bi def ko ci BRT dañ ko ñaan mu def ko ci tëli bi Sénégal bu ñu bëgg émerger émergence bi ñu woote Sénégal tëli yi fi ne 1960 la ba léegi 7 mètres de largeur ci oto yi fi ne xëyatuñ ci kaw tëli bi accident bu ñu bëggee ñu éradiquer ko dañoo war a fexe ba ñu yokk tëli yi def ko deux voies sur deux su mun def autoroute waaye nag bàyyi ko nii ba noppi ñu daw guddi bàyyi war ngeen daw guddi te accident yi tëli bi la du oto yi de accident yi nga am bëccëg ba léegi ay mortel mi nga am nga xam ne kon tëli bi la 7 mètres de largeur oto boo xam ne mën na daw 150 kilomètres à l'heure tëli bi 90 lañ ko bi nga gis à 110 lañ ko limité Sénégal amaguñ tëli national bu romb 90 te automatique ñoo fi ne loolu nag ñu ngi ci woo état bi moo tax fa tëli mu gën a gaawee ndax li indi accident yi loolu ci la